dikkati naa na ku ne lamb sab nooyi ngir vérifier baax na ñëpp a ngi nooyi ndax kat lanket quotidien moo ma xamal ne réew mi ci boppam nokkeetunu yéene kaay bi daal di may xamal ne la ko waral mooy Ousmane Sonko la ñu auditionné ni ki tey tribune yéene kaay daal di may xamal ne moom Ousmane Sonko tey day dina taxaw ci kanamu juge bi ngir leeral dëgg-dëgg lan moo xew diggam ak Adji Sarr coow la coow la mooy wuyol la wala it ab accusation la en tout cas yéene kaay bi dee média bi ne ma tey jii daal lépp dina leer moom Ousmane Sonko njiital Pastef daal di calmer jeu bi de dëgg bal bi nee na bu kenn dem ca boobule audition l'évidence yéene kaay ne ma Ousmane Sonko kay dafa sax minimiser daal di xam ne ni nag ni mbir mii du ma ko kaso ab audition dong la bu ca noppee daal di wéyal ay activité am waa Benno Bokk Yaakaar ci l'Indépendant yéen kaay mel ni ku naan yaa ko tey de ndax xam nga ni nag Sénégal li fi amoon dootu fi amati Omar Sow responsable APR yëmbal sud ci tribune yéen ne ko yow Ousmane Sonko yaa war a del siwaat ci suuf wàccee say mbagg te xam ni nag nekkoo ab intouchable Omar ci Vox Populi daal di xam le ni fii lan jàpp nag Sitor Ndour ne Ousmane di doxantu lan moo tax nag justice bi am deux poids deux mesures Omar Sow koy laajte de xam leen ni nag place Ousmane Sonko du ci biti ca kaso ba la Ousmane ci l'indépendant yéen kaay ne xaw ma ku may tëj de waaye di doon Macky Sall ci dossier bii kenn mënu ma cee tëj te kenn mënu maa tere doon candidat 2024 day metti rek waaye dañ may auditionné buñ pare ma dem ñibbi ndax dossier bi dafa vide Sud Quotidien daal di may xamal ni moo taxit lu yeewi askan wi daal di baax Ousmane Sonko daal dina koy ñeer léefo yéen kaay ne Sonko ngay tempéré yeewee ngay yëkkati nag ay kaddu yeewee ngay sonné mobilisation di déclarer guerre président Macky Sall moom Khalifa Babacar Sall naan ko la amoon mars 2021 dàquñu ko bés boo bëggee sàqal pexe Ousmane Sonko Ousmane Faye ci vox populi naan Khalifa Babacar Sall yow ban la waree auditionné ay rangoñ nga ko faje tey jii ngay jaay guerrier di jori kaddu yoo xam ni mën naa taal réew mi du duñu ko nangu lée fa yéene kaay ne moom Ousmane Sonko day nee na calme rek Sonko daal calme la woote ak jàmm Ousmane Sonko ne leen duma ragal te ragaluma ba jël gendarmerie police ak renseignement généraux yëpp teg ci mbir mi bu nekkee ni ab sëriñ daf leen xamal ne le trois bi la lépp di jeex bu yeboo ñu daw tëri te xam ni nag tey jii le trois Ousmane Sonko ne leen dara du xew ci réew mi vox populi ne ma yeewee ngay fippi Ousmane Sonko di leen dalal l'exclusif yéene kaay ne ma président Macky Sall woo ay force de l'ordre am Ousmane Sonko te yëpp askanam l'observateur ne ma Sonko nee na jàmm rek de jàmm jàmm la woote critique yéene kaay daal di may xamal ne mbaalu amoon nag mars 2021 du am tey ci bile àtte source aane ko ko de ndax nag tey jii yi Ousmane Sonko dina wuy ji ànd ak fukk ak ñaar ci awokaam ñaar ña nag dañuy absenté gannaaw juge bi kenn ku ne ci awokaa yi am na droit poser question procureur bi ci boppam dana assister audition bi Sonko nag war a jàkkaarloo ci salle bi ak Adji Sarr confrontation war am seen diggante libération yéene kaay ne ma tey du yomb de ci biir tribunal bu Ndakaaru ndax nag moom Ousmane Sonko ci boppam ay awokaam nag dañoo sàkku ñu daal di auditionné maître Papa Sow bëgg nag xam lan la maître Papa Sow mi laalee mbaa mu ko ci mbir mi ndax nag docteur Alphouseyni déglu nañ ko gannaaw dégloom bi dafa xamle ni maître papa Mamadou Sow mii moo ko woo ci téléphone ne ko damaa bëgg nga jëlal li ma soxna sii di Adji Sarr Liberté 6 consultel ma ko moom Ibrahima Koulibaly ab témoin xamle na ni ñaari fan ci weeru février atub 2021 moom Adji saar mii dégg na ko muy wax téléphone naan maître papa Sow mi ngi ci suuf waaye du ko jël si ndax nag wotob Mamour Diallo moo koy jël si coow li coow li kay moom moo di ndax juge bi tey jii dina nangu déglu maître papa Sow ndax ay sàkku nañ mu déglu Baye Mbaye Niass MC mbiru Mamour Diallo waaye tam ka ñuy wooyee madame Tall laataa loolu l'exclusive yéen kaay ne ma Dakar de ñi ngi ko def comme Hezbollah gouvernement gi nag génne lépp lu mu amoon ci takk der gendarmerie police sapeur pompier ngir rek lépp lu am ci réew mi ñu mën koo fàggandiku Ousmane Sonko ne bu kenn génn fa tribune yéen kaay ne en tout cas dina leer de la amoon ca salon de massage ba diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr tey lépp dina leer ci tribunal le vrai journal ne waaye Ousmane Sonko kenn mëne su ko fa tëyee moom kay ca tribunal ba lay jaaree génn libre fayal laaxu moom commissaire Sadio di vox populi daal di xam le ni moom juge bi kay fii la waroon jaaree rek wax ab nool ya ndax gisuma benn élément boo xam ni mën naa taqal Ousmane Sonko ci lii nga xam ne ñu ngi ko koy toppee le mandat yéene kaay ne Maham Diallo day jàkkaarloo nag taarix ba nuppi ak dogal bu mu fi mënti jël ni ki tey taarixuk réew mi daal dana ko ko toppee bés bi le jour daal di may xamal ne jege na juge bi moom Ousmane Sonko waaye sori nan la amoon weeruk mars ndax njiital Pastef nangu naa wuy ji Omar Maham Diallo waaye xamle na ni askan wi bu ko kenn topp la Ousmane Sonko bañ mu amaat ci réew mi Omar Sow ci tribune yéene kaay ne ko lii bu ko njëkke woon bakkan yu sakkan ya rotoon mars 2021 day du am ci réew mi tribune yéene kaay ne boobu réew bi dee média bi dama tegal sa baaram ba noppi ñu wax ci lii Sénégal nangu na daal di fukki milliards ci yoon wi digganteem ak Bamako bés bi le jour ne ma scandale bi nga xam ne dootul fay fa yàllaaxu day mooy bu armement bi ñaar fukk ak juróomi milliards ndekete yoo sip surfacturation la enquête boo xam ne amal nañ ko yees daal nay dëggal ni contrat bi ci bopp boppam jaarul ci yoon ndax nag njëkk dafa am lu bari luñ ca yokk ba mu egg ci ñaar fukki milliards ak juróom ci surfacturation yéene kaay bi mel ni ku naan maan ani gouvernement bi ñu génnoon wax di xam le ni secret d'état la waaye itam contrat armée yi amul lu ca lëndëm bés bi le jour ne mani la ab enquête moo daal di xam le ni dafa lëndëm ba wees ak juróom ci surfacturation am na ci yooyu le contrat fan la xaalis bi jaar kan mooy petit boubé l'enquête bi daal andi na ci ay leeral xam le ni luubal du bu mu koy def ci dénduk Afrique moom petit boubé mii l'observateur ne ma boobu président Macky Sall mi ngi ci yoonu bu wàññik location nee na ñeenti weeru caution yi na dakk ci réew mi rax ci dolli ne gees na njëgu location na wàññeeku bu baax ci réew mi taxulaa am ñetteel bi mandat Mamadou Lamine Dieng DG IPRES maire bu wàqu na ne ko déet moom président Macky sàll kay ñaareelu juróomi at yoon ci boppam may na ko ko mu def ko ci réew mi l'évidence yéeni kaay ne ma boobu day ndooy ak saar ñaari àlliw la yoo xam ne ñoo bokkub kaa ndax nag kii parti socialiste dafa jàpp daf ko wor keneen ki AFP jàpp ne daf ko wor muy Alioune Ndoye Libération yéen a kaay xamal ma ni firi juróomi milliards la war a fay promo mobile bu mbàkki fay tribune yéen a ne ma boobu réew maa ci naqar goo xam ne xamuñu kañ lay fay aada ak cosaan daal di réer saa si tembe ci réew mi bas jaxate koy jooy noppeeguñu Pape Fall Salse roba daal di làqu tribune yéen a ne ma ñaari perte yoo xam ne mag na lool réewum Sénégal am ko waaye tam ñi yëngu ci aada ak cosaan daal di koy dund réew mi lanket ko dajee na ma bu dëggul liggéeyu jàmbur dina ma jaaxal lool ca kerewaan ab xeexoo moo fa am imaam ratib ba ñu daal mi quotidien daal cité mixa ay élève ñoo daal di drogué kenn koo xam ne ñu seenub client la ab mécanicien la gannaaw ba ñu ko drogué dañoo jël iPhone 12 am ak xaalisam ba mu yoroon ndongo yi ci boppam dañu demoon foofu di jaay seen bopp ba am fab client daal di koy sàcc l'observateur ne ma lu doy waar leneen a ngi nii de tës la sax nag ab tôlier moo daal di joxoñ benn gérant dibiteri ne moo ko doon sàkku yéenekaay bi ne ma la ca doy waar mooy ñaari ponkalum magum jëmm lañ ñaari góor lañu génn ak soxna moo leen fekk digg bëccëg ñoom ñaari góor ñoo ñee ñuy sëy te la ba compagnie gees ne gérant débiteur bi ci boppam moo ko doon sàkku ciy sàkku bàjjo bi kuy bàjjanam ci réew mi ak lu mën a am mbokk yi nan ñaan jàmm xuy ju seen borom euh, kenn ki waykatu salsal la kenn ki artiste bu daan bégal euh, askanu Sénégal la ci wàllum théâtre ak film euh, mujj nañu wuy ji seen borom yéene kaay bi dikk na ci jëm ci nag ci yoon bi euh, Sénégal nag euh, nangu na kon ñàkk ay milliards euh, ci corridor Dakar Bamako ngir nag man koo oyofalal ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo yoon boobee mu ngoog yéenekaay bi dikk na ci Vox Populi dafa ñëw ci audition boobee nga xam ne moom lañ doon waxtaanee sànq. audition bi nga xam ne euh, tey jii ñëpp ñu ngi xippi seen i gët di xool Yewwi Askan Wi euh, la conférence des leaders démb ñoom ñoo njëkk a amal seen point de presse euh, laata Ousmane Sonko di wax ñoom ci boppam dañu bëggoon rek maanaam yokk ci xar mi karaw bu fekkoon xal bi dafa gëmb ñoom dañ ko doon ëff ngir xar mi jeexiwaat Yewwi souffle sur les braises kon nag nanu wootee yéenekaay bi nee na kon nag wax fa dëgg neex yàlla dafa mel dañ doon yokk si xar mi karaw ñoom waa Yewwi Askan Wi nous ne pouvons pas exclure une réédition de mars loolu Khalifa Sall moom moo ko wax la nga xam ne moo xewoon mars ba am ñu nga xam ne faat nañ si euh, mënuñu ko dàq nag ci bésub tay jii bu fekkee nag am na nu ñu doxalee loolee ay kàddu la yu nga xam ne ni euh, Khalifa Sall moom moo ko yëkkati waaye jamono joojee Ousmane Sonko ba mu defee déclaration dafa tempéré mm. ne leen nañu àndaaxub daal nañu àndaax daal wax fa dëgg neex yàlla audition la ma woolu te man maa sàkk woon ñu wooma ngir ñu jiide dossier bi bonne fois pour toutes kon damay wuy ji soxla ma renfort soxla ma ku ma gunge euh, donc damay dem wuy ji maax samay avocat moom Ousmane noonu la gisee ay leader yu Pastef sur les traces de euh, Sitor Ndour euh, loolee nag yenn ci ay responsable yu euh, nguur gi ñoom ñoo ko xamle ni ñu leen gisee nii Omar Sow Mamadou Lamine Massaly nee nañ nag wax fa dëgg na yàlla dossier bi bu maam ak bot di compté nañu ko traité rek comme ni ñu traité dossiers yi nga xam ne am na fi mbirum viol lu ci mel ni kon Sitor Ndour ba nga xam ne nee nañu mu ngi ci kaso ba léegi wala boog tudd nañu ko ci mbirum viol kon nag nañu ko def mbirum citoyen rek mbirum ko nga xam ne dañ la tuumaal nga war a wuy ji Khalifa euh, Sall euh, ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci wàllum audition bi ak kàddu ya mu ca euh, yëkkati mu ngoog moom Ousmane Faye le vrai journal tey daal yéen kay ñoom ñëpp ci audition bi lañu ñu dikkan ah, Yacine le vrai journal dafa nekk ne Sonko repartira libre du tribunal kon nag ñëpp loolu la ñuy xaar mu dem wuy ji bu paree nag delluwaat ci ay activité am ndax nag euh, waa Ziguinchor dañu ko yónni yàkkamti ko ndax dañu ko dénk goxub lëmm diwaan bu nga xam ne ni peut-être bu ko liggéeyee rek Sénégal sax mën na cee gis boppam en tout cas yéenekaay bi loolu la loolu la xamle euh, dafay ñëw delluwaat ca fa nga xam ne moom la euh, jóge woon audition dont l'affaire Adji Adji Sarr en tout cas wal Walf Quotidien foofu la dikk le poker mant lu mu ci manti doon leader Pastef dafa mel ni kon ndëgg sërëx moom waa Walf Quotidien nee nañu ndëgg sërëx bi nga xam ne dañu ko lal lalaloon Ousmane Sonko ngir nag bu ñu ko waxee kaay mu bañ ñi man koo forcer patam patamee ko xëcc ko téye moom ndëgg sërëx boobu heureusement gis na ko ba fekk sew ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gi leader de Pastef déjoue donc le piège donc moom nee dafay wuy ji yeewi askan wi nag ñu ngay daan xaafu ñu ngay daan xaafu wax fa dëgg neex yàlla nee nañ fu fasul dem xele fay doxantu euh, loolu nag kaay bi euh, foofu la dikk di Walf Quotidien le témoin nee nañ nguur gi da daas na fanaanal donc na ab kurpañam euh, maanaam kaaraange gi nga xam ne moom la ñu gis si diwaanu Dakar en tout cas le témoin noonu la gisee il ne devrait en principe pas y avoir un remake kon leer na la nga xam ne moo xewoon mars alhamdulilah kenn du ko gis ci tey ji nga xam ne mooy weeru novembre bi ñetti fan opposition bi nag nekk seen pied de taxaw fas jàkkaar jàkkaarloo maanaam xaar la nga xam ne moom mooy mujjantaloo ci audition bi euh, ñoom opposition am ndax démb en tout cas waa coalition Yewwi Askan Wi démb war a def nañ seen point de presse euh, fii si doon Dakar ñu bëri nag amoon nañ ak ak tiitange peut-être doon xool lan mooy nekk réaction opposition bi démb ngir tey nan lañ war a taxawee en tout cas ñu bëri ci askan wi kon euh, xamoon nañu njort nañu kon ak tiitange amoon na sa ñoom culture bi ak théâtre bi dañu nekk ci ak sëngéem ndax Pape Fall waykat la waaye comédien bi di Bas Jaxate ni ki rek démb lañ ñu dëddu le témoin foofu la génne Sud Quotidien fi mu génne moom moo di ba tey affaire Sweet Beauty mbiru Ousmane Sonko Adji Sarr Yewwi eh, ñoom nag wax fa dëgg neex yàlla yëkkati nañ seen kàddu doon mel ni kan dañuy woote guerre en tout cas Ousmane Sonko di leen dalal ne leen dal leen rek dal leen rek fu mu nekk nii tollooguñu foofu donc fu mu nekk nii nañu joué bal à nañu nañ wàcc bal bi ci suuf ndax dañ maa woote ki xanaa bu la waxul jox la te laa jax la kase donc Ousmane Sonko nee leen lii yëpp jaru ko xët xët geex woote fitna geex yooyu yëpp jaru ko nañu see bal à terre rek Dakar sous haute surveillance en tout cas yéen kaay bi foofu la euh, dikk face à face aujourd'hui entre Sonko et Mahmat Diallo euh, doyen des juges en tout cas moom la ñu dénk dossier bi euh, les éléments clés mu ngoog yéenekaay bi euh, dikk na ci xalifa euh, xalifa Sall et ses frères d'armes ñoom fu mu nekk pare nañu nee nañ dëkkab dóor a faya koy tas corps à corps la ñu woote ñoom xalifa Sall ñoom Habib Sy en tout cas ñoom euh, président Aïda nee nañ dëkkab dóor a faya koy tas ñoom loolu la ñu woote démb seen point de presse bi en tout cas Sonko gannaaw ba mu wóoloo boppam wóolu fa mu teg ab tànkam xam ne lii ñu koy toppee dara mus te mënu ko tere doon candidat ci présidentielle 2024 moom dalal na leen dafa mel ni def leen conduit dafa leen xamal ne peut-être en tout cas bu sukkandikoo ci source A ne leen fii ngeen ma bëgg yóbbu du foofu mm-hmm. yoon bi nii la ñoom waaye conférence des leaders dafa mel daf leen càll quoi man maa waxee noonu mais ñoom dañu woote seen ak fitna moom woo xamal leen ne peut-être yoon bi di foofu nañu def nànk rek parce que gisuñu lu ko fi jaar fu mu nekk nii yéenekaay bii di Source A euh, fa la fa la dikk Source A dafa ñëw ci coow li doxoon ci diggante Free ax nag euh, euh, jëwriñ yu Faye Free nag dañu ko condamné ngir mu fay cinq milliards jëwriñ yu Faye borom Promoville Promobile maanaam promoville man promoville xam nga mooy def mooy defar yoon yi promoville euh, réew mi quotidien peut tamit ba tey dafa ñëw ci audition euh, nee nañ nag ngalawaay nañu éviter la nga xam ne moo xewoon mars euh, ñetti fan ci weeru mars ba mu am ñu sa ñàkk seen bakkan nanu ko nanu ko éviter Ousmane Sonko nee na dossier ordinaire la rek dossier la or bu ordinaire donc nag mi ngi sàkku ci askan wi ñu àndaaxub daal rawatina ndaw yi ñi nga xam ne ñoo ko jox nopp ndax ñu bañ a génne ngir bañ a amal benn yëngu-yëngal moom loolu la lool la sàkku euh, moom Ousmane Sonko lool la woote jàmm la woote en tout cas l'observateur dafa ñëw ci cherté de la vie président Macky Sall fixe son prix du loyer en tout cas wàllum euh, loyer bi gannaaw ba commission bi defee le point ba noppi joxoon nañu ko rapport bi en tout cas ñu ngi xaaral ni nag ani ñan la ñuy euh, nan la ñuy euh, fixer prix yi loolu yéen a digg le président foncier contre les quatre mois de caution président Macky Sall nee na euh, ci nga dem di wut ab néeg wala appartement wala studio ñu ne la quatre mois ngay fay caution maanaam benn weer bi euh, courtier bee moom ñetti weer bi euh, ka nga xam ne mooy loué moom moo ko moom nee na loolu ci boppam d'accord aussi donc Sonko mi ngi woote ak jàmm. ci boole laaj la. bulletin de salaire wala contrat de travail. ci ci ci ci location. ñu xam ndax di nga mën a fay wala déet. en tout cas mi ngook yéen kaay bi dikk na ci l'indépendant Sonko. dégongle donc la bulle de sécurité la bulle donc sécuritaire euh, dafa mel ni kon nag fa ñu ko doon xaar moom euh, l'indépendant nee na Sonko fa ñu ko doon xaar fekk sew leen si dafa xam ne fu mu nekk nii peut-être dañu koy xaar ci defante mu woote jàmm dem wuy ji fas yéene delluwaat sabotage bi ñu ne nemmeekoon jëm ci lancement euh, promobile bu Mbackiou Faye Free dañu ko condamné juróomi milliards la koy fay en tout cas yéen a bi foofu la dikk Euh, exclusif tamit mi ngi noonu audition dans le fond euh, Macky sort ses forces Sonko retient euh, son peuple mu ngoog bu fekkee président Macky Sall génn na ay takkaderam moom Ousmane Sonko woo na leen ci at daal nee na leen bu bu kenn wuyu bu kenn wuyu waaw L'As quotidien foofu la génne Sonko se plie face à la justice peut-être L'As quotidien dañoo jàpp ne Sonko dafa dem ba gis ne peut-être sës na dos au mur mu nangu li yàlla dogal en tout cas L'As quotidien loolu xam xamle moom moo ko moom moo gisee noonu bis répétita point d'interrogation la ko def ndax la xewoon mars du xewaat en tout cas critique point d'interrogation la ko def euh, le l'enquête nee na le pays retient retient son la fu mu nekk ni askan wi dañoo rek ak seen yi di xool tey ji lan mooy lan lan mooy xew en tout cas yéen kaay bi euh, dikk na ci hmm. Hmm. alerte c'est ça non am na ci ay titres yu nga xam ne oh. dafay xam ba taal cest dañuy xam ba taal quoi ci doon man gisuma gisuma gisuma lu ja euh, euh, ko daal ay xewoon mars dina xew dina xewaat mais ni xam nga ay dafa am ay titres yu xam ba taal Sonko tempère Yewwi va-t-en guerre alerte foofu la génne nee na Sonko mi ngi tempéré donte waaye Yewwi ñoom fu mu nekk dañoo woote guerre en tout cas foofu la génne euh, Mohamed Lamine Massaly ba tey leader de UNRN moom Sonko n'est pas intouchable dikk na foofu ñu dem ci Oja pour jeexal mu ngook ak sunu ndem si yàlla yi euh, ki nga xam ne moom mooy Pape euh, Fall tam daan way salsa Africa salsa sama mbokkum tëngéej la mm. borom man ku mbalamba euh, moom bi baax na ak bas jaxate bi nga xam ne yàgg naa bégal askan wi da nekk si stress mu daal di lay dindi sa stress si euh, suuf ñu gis taskatu xibaar bi Salif euh, Diallo moom it fas yéene couvrir mbir mi donc mu ngook euh, ñett ñi yàlla allahumma amin yàggu dara bi ñu dëddoo yàlla suuf oyof seen kaw te yàlla xare leen aljana min yaa rabbal Euh, li gën a fi si bopp xibaar yi mooy leen waxtaane sànq muy audition wu Ousmane Sonko tey ci alxames si ñetti fan ci novembre lay doon leader bu Pastef dana wuy ji Maham jàlloo mu yor lu jëm ci wàllu affaire boobee nga xam ni daf ci def fas aji saar mi ko tuumal ni euh, da ma doon sàkku ci force Ousmane Sonko démb ci déclaration boo kenn ànd ak moom jëm jëmmam doy na moo ki avocat am ngir taxaw ci kanam kanamu àttekat bi donte ñu mu àndal ci wàllu politique naneen la ñu gisee dinañu wax ci wàllu xibaar liggéeykatu grand domaine du Sénégal euh, ni seen directeur moom bëggul benn yoon dialogue dafa mel ni ku leen di jaay doole mooy lu tax ñu décrété grève wu ñaari fan boole ci nag ni euh, ci doxalinam dafa am ay irrégularités yoo xam ni nanguwul ku ko jubbanti wàllu sport dinañ ci